في هذه الساعة الإلهية والحضور الميمون تحت رئاسة الشريف عبد العزيز حيدر ابن رسول الله وتحت رئاسة عميد البلد السيد عبد الله تال الذي كرس حياته لخدمة مورا وأحوازها فزاده الله وأيده صحة وعافية سماحة الشيخ محمد المنصور سيسي الذي هو صديقي وخليلي ونائبي وسميري ومرافقي في كل درب أعز الله بقاءك للإسلام أيها السيد الكريم السيد بابكر جي الذي هو صنوي وحبيبي وعوض ذاتي nusallimu alayhi ayuhal ibnu lbaar asayid mohammad njegéen alladi lahu xurmatun amiqa fi acmaaqi qulubina wa sinwihi asayid mohammadul amin alaysa kadalik walwafdi almurafiq maa asayid assalaamu aleykum sayid ibrahim Diop Ibra Diop alladi huwa xabibi wabnu uxti sayid Ousmane Kane al ax xabibi sayid Ali Sey rahimahullah asalaamualeykum wa rahmatullah alhamdulilah alladi xarama alfawaxisha ma dahara minha wa ma batan wal isma wal barya wa an nushrika bihi wa an naqulu fi xaqihi ma laysa naclam wasalaatu wasalaamu ala sayidi sayidina muhammadin nabi lummi al amiri bilmaarufi wannaahi an ilmunkar nabiyina al amiri naahi fala axadun abarra fi qawli laa minhu wala nacami huwa alxabibu alladi turja shafaacatuhu li kulli hawlin min al ahwaali muqtaxami أيها الحضور الكرام فإننا نتحدث إن شاء الله بتوفيق ربنا بموضوع هام وهو نهي الإسلام عن هتك أستار المسلمين l'interdiction de l'islam de faire mal aux musulmans, notamment les croyants entre eux. أيها الناس لقد أعطى الله تعالى لجميع الخلق حرية الحياة على السلامة من غير مسيس لأي فرد أو جماعة لذلك fa li bani aadama kulliyatin xamsa laa yutaarrad al awal xurriyatu alxayaa ثانيا حرية المال والملك ثالثا حرية النفس رابعا حرية العقل سادسا aw xaamisan xurriyatu al irdi wa qad qiil xurriyatu al aqida wa qad xarama allahu al masaasa li ay axadin min xuquqihi al madkuur fardan wa shacban wa qad akkada al qur'an bi qawlihi wala tatamannaw ma faddala allahu bihi bacdakum ala bacdin lirrijali nasibun mimma ktasabu wa linnisaai nasibun mimma ktasabna wasalullaha min fadli al aya wa qad xarama allahu taxaasuda linnicami fima baynana wa qaala taala am yaxsuduuna annaasa ala ma aataahum allahu min fadlihi wa aydan qaala taala ahum yaqsimuuna raxmata rabbik nahnu qasamna baynahum maichatahum fi lxayaati dunia wa rafacna bacdahum bacdan liyattaxida bacdahum bacdan suxriya wa rahmatu rabbika xayrun mimma yajmacuun wa min qawlihi taala wa min charri xaasidin ida xasad wa lilmuslimin akaadu xuquqin fi ma baynahum min xusni almuaamalati li ann rabbahum waaxidun rabbuhum waaxidun wa nabiyuhum waaxidun wa qiblatuhum waaxidatun wa millatuhum waaxidatun walqur'aan waaxidun wa shariicatuhum waaxidatun wa aqidatuhum waxidatun kama qaala subhanahu wa taala wa anna hadihi ummatukum ummatan waxida wa ana rabbukum faabuduni ay waxiduni fa wajibun alayhim idan an yuwaxiduuhu kama qaala taala wa qaala sallallahu alayhi wa sallam la hadmu samawati wal ardi ahwanu ala allahi min qatlil muslim wa qad qiila la qatlul muslimi acdamu cinda allahi min hadmil kaabati walil muslim maca axiihi lmuslim xuquuqun kama qaala sallallahu alayhi wa sallam al muslimu axul muslim laa yadlimuhu wala yaxqiruhu wala yaxduluhu wala yaslimuhu bi xasabi mriin min achar an yaxqira axahu lmuslim wa qad qiila man zanna annahu xayrun min alkalbi falkalbu xayrun minhu wa lilmuslim maa axiihi xuquuqun sitta awalan an yusallimahu ida laqiya an yacuuduhu ida marida an yuqriduhu ida staqrada an yastumuhu aw yushammitahu ida atasha wa hamida an yuhanni'ahu fi salaamati wa an yuazzi fi l aksi an yushayicahu ida maat ayuha nnaas كل هذه الحقوق يتنافى مع هتك أعراض المسلمين وإيذائهم فذلك الإيذاء لله سبحانه وتعالى وقد حرم الله تعالى هتك الأعراض في غير ما موضع من القرآن qaala taala inna alladina yuuduuna allaha wa rasulahu laanahum allahu fi dunya wal axira al aya wa qad naha allahu subhanahu wa taala an hadki acraadi aw sabbi almalaa'ika wa qad qaala taala man kaana aduwan lillahi wa malaa'ikatihi wa jibrila wa mikaal fa inna allaha aduwun lilkafirin وقد نهى الله عن سب الرسل قال تعالى لا نفرق بين أحد من رسله أي بكفر أي مسلم بذم بأحد من الرسل وقد نهى الله عن ذم الصحابة قال صلى الله عليه وسلم الله الله في أصحابي لا تجعلوهم غرضا لو أن أحدهم anfaqa mithla uhudin jabali uhudin dahaban alxadis ma balaga nasifahu wala muddahu alxadis wa qad naha allahu an sabbi aamati almuslimin walawliyai walsalihin qala taala man aada li waliyan faqad aadantuhu bilharb wa qad qaala cheikhuna wasilatuna sayidu ahmad tijaani qaala lahu nabiyu sallallahu alayhi wa sallam ya ahmad tijaani qul li asxaabika laa yudi baaduhum baadan fa inna dalika yudini wa fi qissati rajulaani xakamun wa qad naha allahu an sabbi alwaalidayni wa qad naha allahu an sabbi aamati almuslimin qaala taala inna almuslimin walmuslimat al aya wa qad naha allahu an sabbi alsayidati alafifat قال تعالى إن الذين يرمون المحصنات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة وقال تعالى لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم wa min anwaa al ida wa hakki al araad awalan al ghibatu wa qad harramahu al quran wa sunna wa fi wa fi al hadith inna ahwana al riba an yankiha al rajulu umma wa inna a'laahu istiqaalatu al ard abdi aw rajuli fi irdi axiihi wa fi xadiisi Aïcha radiyallahu anha qawlu nabi sallallahu alayhi wa sallam laha laqad kulti kalimatan law muzijat bi maa il bahri la mazajaha wa fi lxadiisi anhu sallallahu alayhi wa sallam innahuma saamata amma ahalla allah waftata amma harrama allah wa min anwaaci idaai almuslimin qawlu suui binnamimati kama fi lxadisi anhu sallallahu alayhi wa sallam innahuma yucadibaani yucadabaani wa maa yucadabaani fi kabir amma ahaduhuma fa kaanat tamshi binnamima alxadis wa fi lxadisi aydan laa yadxulu ljannata annamaam wa qad nuqila fi laxbaar wa huwa naqlu laxbaar wa taadimuhu wa tafximuhu kama huwa alxaalu wa min anwaai idaai almuslimin attajassusu wa taxassusu wa min anwaai idaai almuslimin alibtizaaz chantage min jamici anwaai xarakatihi kalibtizaaz binasri suwar walvideohat alhabita kama huwa alxaal fi mawaqii electroniyati wa mawaqii internet wa min anwaihi sabbu lmuslim li dicri l abaai wal ummahat bi suu fa fi lxadisi anhu sal allahu alayhi wa sallam laa tu'zu al amwaat ka xaalati ibnati abi lahab wa ikrima wa xaalid wa amr ibnu aas wa gayrihim min alsaxaaba wa min anwaa al ida lil muslimin al istimaatu lahum li hakki al araadi wa taxliilihi wa tadaaxuki li dalika wa adami nahyi bihi kama huwa waaqicun fi qissati sayidna jibril maa rabbihi xiina stadanahu bi hilaaki baladin fa qaala lahu jibril inna fiha rajulan saalix fa qaala allahu subhanahu wa taala fa bihi fabda li annahu lam yatamaar ay lam yataxayar wa wajhu qatt li suu alladi irtakabahu qawmuhu fekke muccul wa min anwaai al ida albathu albathu almubashir li hakki al acraadi waltaxaasumi wa nasri alxalaacaati wa hakki al asraar wa hakki l astar wa dicri l uyub wa dicri l athami walfujur ayuha nnaas wa min cilaaji tilka almasawi walida alrujucu ila tacaalimi alislam min nasri alxayrat walqur'ani walsunna walcilmi wa dawihi wa madxi alkurama min alanbiyaai walsaalixin wa garsi almahabati والتحابب والأفراح والحفلات بكلمات الخير والدين تصديقا لقوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم وقد قال صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما فلذلك أرسله الله بالهدى بعد فترة من الرسل فبلغ رسالات ربه wa qaala innama am inna amwaalakum wa acraadakum wa anfusakum alaykum xaram ka xurmati yowmikum hada fi shahrikum hada fi baladikum hada fi baladikum hada baladikum hada wa satalqawna rabbakum fa yuxkimu fi ma baynakum ala hal ballagtu ajibuhu ala hal ballagtu bala wallahi laqad ballaga wa nasaha wa nasaha fa salawatullahi alayhi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaarihi al azim assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh xam naa lu ñuy waxati amatul waaye xëy bu moo am ak shahaada xëy bu mooy le monde visible ba ku ne di gis sa morom afwan shahada mooy le monde visible ba ku ne di gis sa morom xayb mooy le monde invisible immatériel di ko yëg nag waaye doo ci teg loxo yàlla ne pour nga xam sama grandeur ñaar yooyu lay boole tiiku aalimul xaybi wa shahada moo tax nit am ñaari loxo yàlla ne nan ngay nangoo am ñaari loxo te góorgóorluwoo ci tarbiya sa bopp ba ni nga nekkee ci sa loxo shahada bi di sa càmmeñ nga góorgóorlu ci sa tarbiya ruuxiya ba bëtt univers bi duggal xayba ci sa loxo ndijoor boobu xam ya fa ne qul unzuru maada fi samawaati wal ard wa ma tuxni al wa nuduru an qawmin la yuminuun asamaan lan moo fa ne du rëy mhm. yàlla nee nañ dem visiter ji comme xamuñu la fa ne nag est-ce que du woon jaadu ñu déglu ka xam la fa ne te muy sayyiduna Muhammad est-ce que du jaadu ah, dafa am bés rek jundub moo ko soloo jundub saxaabi la dana yonent bi dafa bokkoon ci aadaam bu masaan na jiite njaboot gi fajar ba sëlmal danaan a ah, ci yërmandeem ju yaati ji ku ku ku ci gént ci guddi gi lu la jaaxal ku ci gént ci guddi gi lu la jaaxal parce que moom xam na ne xay bu dafay gàgganti nit ci gént am ku ne gént naa nangam jundub nee na benn bés yonent bi wax ne ndax kenn géntul dara ñépp ne teg mu ne comme kenn géntul ma gàgganti leen man man de biig dafa am lu xew jóge xaybu ñëw shahaada ne naa leen ko jottali yonent bi nee na dafa tëdd rek gam-gam di nelaw ñaari jëmm ñëw fa bul laajte nag ñaari jëmm yi ñaari malaayika lañ généralement kan ak kan la jibril ak mikail ñu ngi ko fekk muy gëmma ñu ne dafa mel ni day nelaw de ñoom ñoo wax lool dafa mel ni day nelaw keneen ki nekk moom du nelaw parce que bu bëtam gëmmee itam ruux bi mu ngi connecté wu ak rey kon du nelaw nañ ko yóbbu rek yonent bi nee ñu yóbbu ma dégg ngeen seen maam wa daaka fi yaqazin mais asral manaami jalun boobu ci la bii bokk xadiisu jundub bii mu yóbbu ko nee mais li ma jaaxal dañoo bëtt univers bi yonent bi wax mu ngi leer ci man ni may gise mbooloo mi nee ma gis ñu ne ma kaay xool kii ma gis kuñ teg ci benn pantre am benn waay bu ko tiim mu ngi yore xeer boo xam ne Ousmane Kane ak Ibra Diop attanuñu ko waa ji nag bu tiimee waa ji day jékki-jékki bàyyi mu wadd ci bopp bi bopp bi toj yës la wura sëwu ma ne xeer boo xam ne ton la ne ton bu demee ci bopp boo xam ne ñaari kilo bu baree ba bari ñetti kilo la bu ci waddee luy xew laa wax bopp bi day tas kooku bu doon fii dañ naan waa ji dee na mais rey bu dee amu fa ndax <laughs> ña fa ne mooy ñi dee ba pare wala kenn du fa dee bu ñuy dindi bopp bi rek maanaam xeer bi rek bopp bi day formé wu waat yonent bi ne ba mel na mu meloon waa ju am doole jooju foraat xeer boobu dóoraat ci bopp bi te waa ji day yëg métit bi mu yuuxu ñu defaraat bopp bi ba mu ñu jëlaat xeer boobu dóoraat ci bopp bi bii xaal nag ci la nekk ba ma ne moom yonent bi nee na mu ne laa ilaha illa allah ma hada waaw lii lan la ñu ne ko teel na nañ dem nee na ma dem nee na fantalaqna ala rajulin mustalqin li qafaa wa ida axar qaimun bi kalluubin min xadidin wa huwa muwaju ras yanzacu minhu lahm fa ida yati ahadu shiqayhi wajhihi fa yusharshiru shidqahu wa munqarahu ila qafaahu wa yajcalu bilwaji l axar kadalik yonent bi nee na naka laa dem tuuti gis waa ju ñu tëral maa ngi gis ko am kàttan mu ngi yor lu mel ni saamaaru paaka paaka benn paaka boo xam ne dafa am lonku maanaam dafa lunku waa ji nag ñàkk caaxaan ba day jël lexu waa ji lexu waa ji mu tiim jël paaka boobu dugal ci guddi luy xew dafay xotti lex bi nee bu ko xottee ba ci nopp bi mu jëlati côté góos bi jëlati paaka boobu guddi xotti mu demati ba ci nopp bi yeneen bi nee na li koy yéem mooy buy xotti gauche bi dina fekk droite bi wér wér bu jugee foofu mu xottiwaat droite bi dina fekk gauche bi wér te waa ji day yëg mettit bi deret jàng wër fu ne nag yonent bi ne laa ila ma hada lii lan la nekk déet film bi pareegul nañ dem ah nañ dem nee na fantalaq naa ala misli tannuur yi فاطلعنا فإذا فيها واسعة في الداخل فإذا هي فيه لغات وأصوات فإذا فيه رجال ونساء عراة فإذا اللهب من أسفل منهم فإذا يأتيهم اللهب ضوضأوا أي بكوا yonent bi nee na waa ji ne ma teel na nañ dem nee na may dox ba agsi ci lu mel ni pindu teen teen mais teen bi melul ni suñ teen yi ndax li ma yéem mooy teen bi pind bi dafa tuuti dafa ndaw lool waaye ci biir dafa yaatu lool dafa mel ni lu bindoo vee nga xam ne man ngaa wan ne la la fa dugal génnu la fa ñu ne ma kaay yëndu nee bi ma yëndoo pindu teen bi ndekete du teenu ndox maa ngi fekk ay góor yu doon ay xale yu góor ak ay jigéen yoo xam ne ay jànxale bi mais yonent bi nee na li mu yiw yiw moo ko nettali li ma ci yëm ñoom ñëpp yaramu neen lañ def mais ndekete fi ñu teg seen tànk ñoom solo ñu dal la ndekete bettax bu ñu ruyal la ku ci teg sa tànk rek der bi des fa ndax da koy jël ku ci dal ci pindu teen bi euh, sa yàpp xolleku des ci der bi doo taxaw doo toog dëgg la dëgg cëppi cëppi rek ñooñu kuy ut coffre ak physique ah ñooñu kenn du leen ñuy cëppi cëppi yonent bi bi mu ko yëndoo jaaxle na laa ilaha illa allah ma hada ñu ne ko teel na nañu dem nee na fantalaqnaa fa ida ataynaa ala naharin xasibtu annahu kaana yaqulu ahmar mithla dam fa ida fi nnahri rajulun saabixun yasbax fa ida ala shaati nnahr rajulun jama alayhi xijaara fa yulqimuhu yonent bi nee na dama dox tuuti rek maag ñaar ñooñu ma boole ne li ma yéem ñu yóbbu ma ci jenn tefes tefes boo ko déggee mooy mooy littoral du noonu mooy booru géej mais yonent bi nee na géej gi ma gis da géeju mbooro bii du géeju ndar du géeju ndakaaru géeju deret laa gis sallallahu na ma ne waaw lii la la nee ñu ne ma seetal ndekete waa ju toll ni roi des arènes moo taxaw ci tefes bi ab diir benn waay di féey ci géeju deret jooju di féey ci géeju deret ji ba agsi ci tefes benn waay ji nga xam ne toll na ni mbër mu ngi jël ay xeer ba mu xawoo a sut xale bu ndaw xeer yu xaj ci gémmiñ waa ji nag bu feeyee ba ci tefes gi dañ naan kaan ŋaaŋal mu ŋaaŋ waa ji jël benn xeer boobu sànni ko ak doole ci gémmiñ gi mu lump ko dem nag bu feeyaatee ab diir dellusi waa ji jëlati xeer boobu sànni ko mu lump jaabante boobu nag ci la nekk xeer yi jeexul lu mu bëgg jeexul yonent bi ne laa ilaha illa allah maa haada ñu ne ko déet teeyal pareeguñu tax xëy bu triste bari na kuy cëppi cëppi ñàkk xam li xew moo ko def fa yàlla mayoon tuuti dina la jural yar bu la sa baay dul yar wala sa yaay ndax la ngay gis rek lu na yonent bi nee na fantalaqna fa atayna ala rajulin karihi lmanzar fa ida indahu naarun yaxussuha nee na ñu jàpp sama loxo ñu dem quelques kilomètres ma gis waajoo xam ne moo ëpp bâtiment moo ëpp bâtiment moo gën a wow lento wow koŋ yonent bi nee na ma koy xool ak ngandaayam boobu ndekete kanam gi kanam gi xool ka rek doy na ay duma ndax ñàng bu kanam gi ñàng ak ñaaw bu mu ñaaw kanam gi rek xool ko doy na ay dóor xam yëg nga ne xool kanam gu rafet day dundal nit waaye janoog kanam goo xamul noo koy def kooku dara jaru ko yàlla nañ ci yàlla musul Ousmane xool kanam guy belli dafay dundal nit waaw day guddal far nee kii nag xool kanam gi rek doy na métti nee na laa ilaaha wa kii kan la ñu nañ dem nee na fantalaq ila rawdatin azimatin lam ara qattu a'zam wa ahsan thumma ila madinatin mabniyatin bi labanin min dahabin wa labanin min fiddatin fa ida fihi rajul saalih fa qultu ma hada fa qaala li intaliqa fantalaqtu fa ida rajulun shatruhu jamil wa shatruhu qabih fa qultu ma hada qaala al an nufassiru la yeneen bi nee na ma doxaat nag tuuti gannaaw bi ma daje waaju nganda jooju nee na ma gis benn jëmm joo xam ne moom jëmmam dañ koo xaaj ñaari xaaj benn bi dafa rafet lool di dégager parfum bu neex waaye beneen côté bi xasaw gi mu xasaw xet gu bon gi muy génne ak ñaawaay bu bon bi ci nekk la so rek waa ji mu romb nee ma tiit ne waaw ñaari melokaan yi nan la ko nit manee boole ñu ne ma teel na nan dem nee ma dem ba àgg nag ci benn jardin defe naa war naa àgg nag jardin boo xam ne dafa rafet lool xet gi ciy génn jéggi na dayo nee na bi may yéem jardin bi ak xet gu neex di jekki-jekki am ku ne ma xoolal góor gu tedd gële nee na ma gis ko ngi weex tàll góor gi bu reewee nga foog ne projecteur lañ tàll nee na ma bëgg ne ah bii de neex na neex na ci gisin ak déggin waaw léegi lii lan la wala kii kan la ñu ne al aan nu fassiru ko léegi nag dinañ la firi xam nga may kan ñu ne mu ne déedéet mu ne mën a jibril xoolal ni mu xaritoog Jibril waaye dafa camouflé wu tey xàmmew ko kii mooy Mikail sa borom moo ñu yónni pour ñu jàngal la pour nga jàngale ñoo xam ne xew-xew yi xew xay bu noppalewul du loolu la jëkke jàngale du foofu la jëkke nee mu ne ko waaw mu ne ko kooku mooy arrajulu allazi yanaamu an il quran wa an salaati l fajri wa yatruku mu ne ko boo demee nel sa xeet képp ku yàlla may xéewalu mën a ubbi kaamil bi jàng ci donte amayata ba naasi la nga gedd ko jàngoo alquran ba fekk sa borom yow lañuy ñuy mbugale noonu mooy dóor sa bopp koo xam ne bu julli fajar jotee mu dégg salaatu bi te du yeewu pour julli te dégg na ñu naan assalaatu xayrun min an nawmi nee na yow la ñuy dóor loolu ma ne massa ci dul julli kooku na mu ne ko ku ñaareel ki mooy waa ji nga xam ne dafa am ku ko tiim tol ni mbër yor benn paaka di jël lex bi di xotti ba ci nopp bi jël beneen lex bi xotti ba ci nopp bi waaw kooku kan la ñu ne ko gis nga kooku moo di waa ji nga xam ne nii dafay xëy bés fen benn fen fen xam ngeen fen contre vérité lan moo koy def ban cër defe naa man naka lool fen comme foofu nag lay xewe moo tax foofu lañ koy mbugale yonent bi nee na ar rajulu alladi yaxdu min baytihi fa yakdibu kisbatan tablughul afaq ñu ne ko jamono balaa tukki yàlla dina nattoo sa xeet nit dina xëy biir néegam fen fa benn fen boo xam ne balaa ngoon mu daj adduna bi may laaj ndax loolu ak siwlu ci dafa rawa ah. képp koo xam ne nag dangay ngay fen fen boo xam ne balaa ngoon àdduna jot ci yonent bi nee na gémmeñ gànka fene donte benn yoon la benn yoon ci di ko xotti ngay dëkk ci sa mbugalu bàmmeel yaa rabbal mu ne waaw ku ñetteel ki mooy kan wala ñu ñetteel ñi mooy ñi nga xam ne dañoo nekk ci benn kan benn pax teen boo xam ne pind bi dafa xat lool mais biir bi dafa yaatu ña fa nekk doon ay góor ak ay jigéen di cëppi cëppi nag te lu seen der laal loolu ñoreku ñooñu ñan la mu ne ko azawani wa zuna mooy njaalookat yu góor yi ak njaalookat yu jigéen yi kuy njaaloo nan lay def du dafay summeeku ba set yàlla ne portrait boobu lay jël moom lay conserver boo demee du sol du jarati ngay sol yi moo tax du noppale dinañ ci ñëw ci kanam mu ne ko keneen ku ñeenteel ki mooy waa ji nga xam ne day feeñ ci feeñ ci géeju deret bu ñëwee ba ci tefes gi fekk fa ku toll ni mbër mu di ko sànni ay xeer yu muy lumpa moom te du sañ bañ kooku mooy kan ñu ne ko mooy akilu riba kuy dundee riba usure may laaj ku ci mucc yeneen ci bi nee na mujj jamono danañ dem ba toll foo xam ni ku dul lekk riba itam xet gi dara la xeeñ xam nga lu tax da jaay na danga sellal jaaykatu riba bi gën a rëy ci dëkk bi mooy jël xar rendi ko mis wi ko andil la ko nekk sëriñ bi sa reer laa la andil nga lekk ci ba géex ba pare toog naan riba aram na yaa ngi bëgg rey nit ñi yaa ngi bëgg rey nit ñi ci nga dëkk ci nga dëkk ah gis ngeen riba mhm. yonent bi nee na benn tibb boo ko ci tibbee benn tibb sàqami ko ba wanaasu ko ni ko sama sëriñ di jàngalee sëriñ Babacar Sy Abdoul Aziz yonent bi nee na mine de rien mine de rien 40 jours boo ko julee yàlla du ko nangu après 40 yi nag la ñuy lijjanti maanaam benn tibbu riba benn bi la benn rek la sa dund daal benn yoon nga ko def may laaj nag ñaari tibb yi moom ki ki dem nag ba géex waxatuma kooku waaye ki ci dëkk nag te gën naa kawe noonu dinañ ci ñëw waaw jëmm ji nga romba te mun na xaree xool lool kooku kan la mu nekk bu laajte koo koy Malick Malick mooy xaasinu naar safara bële dafa am benn directeur général bu fa nekk Malick la tudd yëg nga ne kuñ fay dugal mooy signé kuñ fay génne moom mooy signé Malick day jekki-jekki yërndu safara ne vraiment di jaabante même di jaabante naan vraiment yàlla defa ko kenn safara waay dugalal sa gars yi safara moom moom mi Malick dafay mer naan leen ne safara dafa tuuti torop na ñëw waay mais Malick la tudd Malick nee na maa ngi ko gis safara san ko wër fu ne ma laaj ci kàlla ñu ne Malick te yëpp nga ne Malick moomu ñu ngi werante moom asrafil ku ëpp ci gabari ñu ngi werante te yonent yàlla Muhammad nee na umirtu an atahaddatha bi malakin bay maa bay na soxmati udnihi wa mank bi bayhi masiratu xam sab'a miati yeneen yonent bi nee na ñëw na fi léegi ne yàlla jox na ma ndigal ma informé leen benn malaaka boo xam ne diggante nopp bi nopp bi laa wax ak mbagg gi doxu 700 ans la ci ku toogul benn place doxu 700 ans kooku kan la ñu ne asrafil la te ñu ngi werante mook Malik ku ëpp xam naa kii ku bëggoon a génne safara ne danay daw défaillance bu la bu la mbéjee nga déedéet da daw ñetti téeméeri at nekk ci tànkam yi ngay daw ay tànkam yow romb goo ko ba tey mu ni ko kookoy Malik yonent bi nee ma dox tuuti ma gis waa xam ne benn côté bi rafet na lool beneen côté bi ñaaw na lool te xasaw ma ni kii kan la mu ne pourtant mooy sa julliti xeet julliti xeet yi xalatu amalan saalihan wa axara sayyi'a mooy jullit bi nga xam ne pas-pasam dëgëragul boo ko fekkee tey ci jàngay mu fanaan fa itam suba mën nga kaa fekk ci dancing ba mbaa sabar ga mu fanaan fa koo xam ne lu mu def tey ci lu baax suba mu màbb ko ci lu bon yonent bi nee na double face lay amee waaw may laaj ndax bariwul mu ne ko kooku mooy jullit bi ragalul yàlla lu mu def tey suba mën na def safaan bu ko màbb mu ne ko nag bi mujjee mooy waa ji nga xam ne euh, dama romb benn jardin bu rafet jardin bi ma fekk fa góor gu rafet bu xaw niroog man malaaka nekk jarul laaj sa maam la Ibrahim or foofu mu ne fan la mu ne ko foofooy àjjana ci ñi góorlu ci sa xeet fa la ñuy dëkk waaw xale yi mu tiim ñan la mu ne wildaanul muxalladun ay xale lañ yoo xam ne yàllaa leen fa teg muy dékooru àjjana booy laaj nag xale bu dul màgg ñii la 10 milliards dinañ ko fa am tudd xale rek may laaj relation bi dox rey bu kon ak shahada est-ce que yonent bi jàngale ah, kon te gàmm gi xam nga mooy lan tere gi lislaam tere jullit buy def safaan wala muy wax lu bon mbokk jullitam may laaj la xewul man damay tiit damay tiit parce que lu nit baax baax baax ñu ngi koy wax safaan léegi ci jamono dëgg la war dëgg et pourtant yonent bi bi mu ñëwee dafa fekkoon jikko wàcc nit bon nit di def yu bon yonent bi jëloon taawam yëpp pour nitel nit quinze siècles après lui nan la nit mel nan la nit mel après lui sallallahu alayhi wa damay laaj est-ce que nit dafa avancé ci jikko wala dafa wàcc ci jikko et pourtant dañu wax ne dafa am juróomi ponk yoo xam ne benn jullit amul droit franchir ko ci mbokkum jullitam benn jullit ñu tudde ko kulliyaatul xamsa moo di nit ku nekk dafa am liberté de la vie kenn amul droit mettre en fin la vie d'un individu kenn amul droit bi may laaj ndax assassinat xewul may laaj ndax agression xew xewul moo tax Pape góor gi gëj naa dox guddi moom rek ah, bi mooy xurriyatul maal wal dafa am la liberté de la possession nit ku nekk dafa am sañ-sañu moom dara ventilo bi amul borom yonent bi nee ki ko moom nañ ko bàyyeeg ventilo bi bu ko kenn jël ci moom sallallahu alayhi wa sallam moo tax même sa doom même sa doom mu ne la papa maa moom lii nga fëkk ko ci moom nga fëkk ko ci moom te ka may sa baay xamoon ne yow qiyaamati di nga ko justifier yonent bi dañ ko tegal néew ne ko kay jullee ko mu ne ah ëpp naa def ñu ne lu tax mu ne parce que maa ngi gis ñu ngi ko kaala xaat kaal ak safara mu ngi tàkk yéen gisu leen ko waaye maa ngi koy gis ñu ne lu tax mu ne parce que butin bi bi ñu xaarajee ba ñëw teranga jiñ fa jële mu mel ni waykat yu way ba dajaay xaalis bi ci gën séddoobu ko waa ji rocc ci benn këyitu ñaari junni Ousmane defe naa dina xew butin dina xew waaye dañoo dem xaari dellu mu gis ci mbàjja mu baax mu ne sedd bii lii du ma rëcc roof ko nag jël ko dugal ko fu làqu bàyyi ba guddi mu sàngoo ko foofu ci guddi gi la dee yonent bi loolu mu sàccoon te kenn joxu ko ko kaala kaala safara lañ ko mujj ñi ñuy kaala dina yàlla ñu ñetteel bi mooy xurriyatu nafsi nit ku nekk dafa am liberté ci boppam oto li ñuy tudde vie privée ci nit di ko ko respectel baax ki nga bokkal sax ndey ak baay bul ko topp ko mu sës ñun nag tàmm nañ ko dañuy fekk sax nit di tëdd ñu fëgg bunte bi ne jugal waa yeewoo ko ba tey ëpp naa def nit dañ koy xormal waaw kon léegi moom bi xew nag toppakaa moom lu xew man damay wax ak kenn mu ne ma dama bokk ci benn groupe ma ne ko ban groupe mu ne ma groupe bu toppakaa ma ne ko doom luy toppakaa la ma wax dara baaxul dara dara mais li ñuy fàtte ñoom mooy ñi topp kaa ñoom ñoom seen bopp kaa lañ ñoom ndax topp kaa rek la beneen bu ñeenteel bi mooy xurriyatul aqli la liberté kenn amul droit wu détruire ak sa intelligence maa moom sama bopp damay tux ba mu neex ma ba xëy kan na su ëpp naa def xamoo ne benn nit bu dof ci société société ba lëmm moo dof wala du dëgg ku sa benn nopp tëx fooy dégloo ci beneen ba bu boobu doon dox doo def boobu coono benn nit bu xelam yë dem rek jàppal ne société bi tëx na ci benn nopp du jariñoo ci kooku képp ku dof yaa xam lu la ci yóbbu moo xam yow yaa ko sabablu may laaj nag bi xew bu mu doon dem ba Casamance nee naa ah, man daal lenn rek laa am liggéeyal ma ko daal mu dof mbaa mu ah waa ñu ne la rek yow daal am na jibi laa li bari baaxul kon daahi li ko defee nag te waa ji deewul da ngay am da ngay am bàkkaaru ku rey ba koo gën a daw yaram maanaam yow ki nga liggéey pour mu dee yàlla dogal liggéey ba jàkkul bu dee rey bu dañuy jàpp ne dee na yaakaar naa yow waaw parce que innamal amalu ñeenteelu point bi wala juróom-benneel bi juróomeel bi mooy xurriyatul irdi booboo tax nag may waxtaan tey mooy liberté bi nit am ci réputation nit ku ne dafa am der der xam nga luy der du sa deru yaram bii de sëriñ Abdou Aziz Diab yi mu ngi mbooro fii yëg nga ne feneen foo ko tuddee fu dul fii mu ne yaa ngi ci deram waaw moom fi muy nekk ak fi mu dul nekk fuy ëpp yàlla nee na pour ngeen doon jullit ma agréé ko seen mbokk fu mu nekkul rek wuutu leen ko fa ngeen nekkal ko may laaj ndax noonu lañu nekkee ah? yàqante waa ji nee na dañuy fanaan ci der yi yendu ci der yi waaw fanaan ci der yi naafila suba ak ngoon yendu ci der yi di jëw baaxul nag li may waxtaan waxtaanuma ko pour wax actualité déedéet dama bëgg man ak ñun ñi koy dégg kenn ku ne jël ci sa morceau rek bi la ci concerné boo demee donte benn bi nga jëf baax na pour man man benn bi rek boo ko jëfee baax na pour man ndax o moins ñu jéem ko royee yonent bi yëgal ni saa soo defee ne xaj bi gën nga ko hmm. baala gën wa loolu loolu sëriñ moo ko wax de dina ñëw nas bi ñëw na fi yàlla dafa araamal laal deru jullit laal deru jullit gis nga ki nga janool wax ak moom xas ko ba mu jooy def nga njombe mais yeneen ci bi nee na bu la wanee nag gannaaw nga toppaat ci loolu moo gën a garaaw li nga ko wax ba mu jooy ndax bi nga ko wax ba mu jooy mën na défendre boppam mais bi fi nekkul nag yàlla moo ko fiy wut yàlla dafa tere nit di iñaane moroomam mooy soxor sëriñ Abdou Aziz mii sol yére boo ko ñeewee nga ne da ko mën a am kii fan la fan la kii dafa am